ah mbokk yi koo xam ne bii da nga amee feebar bi ñuy wax faw say awra muy góor muy jigéen doon ne fanweeri at nga ci def muy à ah, 30 a gaawee koo xam ne bii da ngaa néew kattan sa wàllum sëy moo nekk li nga xam ne bii moo Bassir Ahmad nag ku gaaw la lool boo jokkoo moom nag ci numéro yi sa aajo yëpp dina faju da ngay def 77 125 40 81 wala 76 699 mooy waaji ngénteel alhamdulilah rabbil alamin moo tax xale bu xew moo neex ma lañ ko tuddee doom ji kii nañ ko bàyyilee ah ngénteel kan nga tuddee doom ji ah. sérieusement koo tuddee doom ji doo dóoruma ci dóoruma ci kan nga tuddee ko ci tuddee xeer xeer ko ci tuddee kon tuddee nañu Pawlish doom ju góor ji mais doom ju jigéen ji dafa am tur xam nga par force. jigéen la ak góor. par ak force. waaw par yow lañ ko tuddee. force bi. force jabaru bu Youssou ah, léegi ma lay tuddee par par bi ma lañ ko léegi nag man samay nit laa bëgg nga indil ma ay ay gaynde parce que lii ngeen tëlu. gaynde waaw parce que ngeen tëlu sévère ay gaynde parce que kii kii léegi dama tuddee foofu xeer xeer a ngi nii xeer la tuddee woon. xeer la wala xeer sax. loolu loo ma ne na bagage yokk. waxoon na ne père ah. père xam nga ni mineur bii mineur bii nitu Sine la. père xam kii nitu Sine la. laaj ma la. xam nga nitu Sine la mineur bi baa toj. tey naa la tâche kat yëpp bu ñu mënoon yow tey. barki yaay taasukat bu am classe taasukat bu jantal taasukat bu xam boppam ah, te te loo wax dëgg la yow loo wax dëgg la loo wax dëgg la père loo wax dëgg la ah, waxee rek kontaan kon ñëpp a kontaan waaye kii kii ni nga bëggoon moo tamit nitu finna dëgg la nitu finna dëgg la moo doon tuddee ko chef fa plan ah. waxoon na ma lii de bu son bi génnee far force léppay a ok eh, numéro police bi musuma gis ko amee ñaan ni xamoon naa ne bu bu son bi génnee vidéo génn bu soobi génnee vocal yi génn mais nag eh waay il kii waxoon naa rab du jinde kii mooy Sherpa Blanc waxoon bu vidéo yi génnee bu soobi génnee vocal yi vocal yi génn <laughs> ah kenn attanul li ñun kenn attanul ko mu dëgg yéexee la soobi la nit attanul bañ bañ bëgg bortu la ak <laughs> sa suuka li loolu la ma dose bi dose bi sama loolu laa mën a dégg sama <laughs> la sama suka loolu la suka waay. suka suka. suka. loolu la suka. man de ma naan suka. ma naan suka. suka. li ma gën a jaaxal dafa génne son bi dem yoonam te kii man na kii daal jaaxal na ma mooy nitu fitna laa yaay nitu fitna nitu fitna dëgg gi nii. <laughs> yow nga ci staff bi nga bokk. staff bi laa bokk si staff laa bokk xanaa da nga rek di naan café rek seen ma tëb. damaa yeew nga naan xeer laa ma naan kii ban xeer la xeeru raay la wala xeeru joor la <laughs> yow ban xeer nga xeeru raay <laughs> xam nga basal. te te xeer boo xam ne kenn mënu koo toj. kenn mënu koo toj te te waykat dëgg xerem day dal nooy génne nooy génne soo nit ñi savouré ko nga dem sangu piscine. waaw mooy dëgg la bu day dem ba dafa génne dem noppalu yow. mais nit da ngay noppalu. intelligent xale bi mineur bi. mineur la de ah, mineur la de <laughs> ah mbokk yi koo xam ne bii da nga amee feebar bi ni yoo xam faw say awra muy góor muy jigéen doon ne fanweeri at nga ci def muy à ah, 30 ans Serigne Bassir Ahmad nag fukki fan ak juróom a gaawee koo xam ne bii da ngaa néew kattan sa moo nekk nga xam ne bii moo lëmbee jamono jile Serigne Bassir Ahmad nag ku ci gaaw la lool boo jokkoo moom nag ci numéro yi sa aajo yëpp dina faju da ngay def a 125 40 81 wala 76 699 45 41 Serigne Bassir Ahmad daal mooy waaji